muy dëkk bi ràññiku gi mu war a ràññiku ak boole koo it yokkuteg dëkk bi ci wàllu xéewal ak it boole ko képp ku dëkk ci dëkk bii liñ tuddee xiif teggiku la loolu buur munu ci dara ndax tuubaa dafa surpeuplé dafa jéggi dayoo ci dëkkin ginnaaw dafa jéggi dayoo ci dëkkin te boo génnee Touba tuuti li sës ci Touba ci commune rurale bi ay dëkk nga fi yoo xam ne boo demee xiif baa nga fa te dëkk bi boo fi ñëwee doo ko fi fekk kon lam waxoon sëñ Masamba ne ko Masamba na ngeen dëkk ci dëkk ba te li leen foor mooy jàng alxuraan ak xasida waaye yéen maa leen yor kon kooku yor Touba waaye buur yoru ko état yorul dëkk bii déedéet <coughs> yéen ñi ngeen xam ne yéenay ndawi sëñ Touba yi nga xam ne yéenay jeunesse bi nga xam ne ñoom seen bopp ñoom ñoo wëlbatiku ñoo taamul seen bopp sëñ tubaa bu ñëwoon daal li ñuy wax choix dafa am ñoom ñoo choisir Serigne Touba jeunesse boobu nag mooy ban jeunesse mooy jeunesse bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Maulana mooy jeunesse bu rafet bu sell boobu muy wax ñaare nga xam ne boole ko bëgg lu baax li nekk ci ñoom ñooñu nag ñoom ñoo daje fii tey ci dëkk bii ci Touba foofi dem dina mel ni suñu jotaay bii ak sunu tànt bi ci di taxaw sëriñ bi ci di ko di ko màggal di ko màggal ci ak sell ci alquran ci xasida ak jël seen wërsëg def ci ak ci kaw mbégte ci lu dul àndut ak benn powum àddina du musique du seytaane du leneen len keneen kuy màggal jeunesse rek dafa am leneen lu nekk ci biir ba mu des sëñ Touba kon jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo jël tey màggalaat sëñ Touba ñoom jeunesse murit bi nga xam ne ñoo taamu sëñ Touba di ko màggal màggal googu ñoom raw nañu te loolu mooy li sëriñ bi bëggoon sëriñ bi da koo bëggoon bëgg na ko sax ba ne ba ne àjjana sax moom jeunesse bu rafet boobu ñoo fay bokk nekk waa jeunesse bu rafet boobu wala wil daanu nee na mooy jeunesse bu rafet bu boobu jeunesse bu rafet bu bu tedd bu raw boobu bu raw bi mooy jeunesse bi raw bi kon nag loolu ngeen xam ne yéen yéen a koy taxawee na ngeen xam ne sëriñ bi ci boppam nag ña ko toppoon doon dindi culture am doon dindi ngorom doon dindi ci moom diine doon ko tàqaleeg alxuraan doon ko tàqaleeg lu baax muy tubaab boobu sëñ bi noot na leen xeex na leen ba war na seen kaw yàlla may na ko ci ndam waaye jugunu fi ndax tey jii kat tey la ñu gën a xër ci xeex boobu nuy xeex xeex boo xam ne xeexu wàññi pas-pas di ko jaar ci li ñuy tuddee whatsapp di ko jaar ci li ñuy tuddee instagram ak i facebook pour lan di jël ay image di jël ay jafe-jafe di jël ay kaddu di jël ay wax yoo xam ne di ko dugal ci nit ñi pour wàññi pas-pas waaye dafa fekk ni nun suñuy xol jeex na ci Serigne Touba ba noppi